asalaamaaleykum waa senegal salaamualeykum waa àdduna ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di remercier ñëpp ñi nga xam te ne ñu ngi topp suñuy vidéo di leen jaajëfal bu baax a baax di ñaanal ñëpp jàmm tey ñaan yàlla def ko ci àdduna bépp. tey waa Lu Xew TV ñoo ñëwaat ak yéen ci beneen vidéo analise bu ñuy def toujours ci série maîtresse d'un homme marié donc gannaaw bi ñu seetaanee série maîtresse d'un homme marié ba pare tey. on a ko que Lalla dafa piéger Marème et donc ñu bëri ñu doon wax naan Lalla elle est négligente mais yenn noppiwaay souvent ay pexe la ñuy lal suuf naam sax am na jigéen ñoo xam te ni yàlla la leen bindee tëxët mais ak erreur faa yi nga xam te ni yépp moom la Cheikh def mënul woon ñàkk am loo xam te ni Lalla jëli na ko donc parfois nit dina noppi mais au fond dina am lu mu xam. da koy togg ba mu gën a ñor mu door ko génne donc tey leçon bi ñuy tiire foofu noonu benn dañ koy jëmale ci góor ñi ñaar dañ koy jëmale ci jigéen ñi bi ñuy jëmale ci góor ñi mooy comme niñ ko waxee woon ci vidéo yi passé am soxna ba pare génnaat dem di taxawaalu maanaam di doxaan ci àll bi ëllëg buñ la jàppee gàcca mënul weesu lool comme ni ko laal la waxee ci benn moment bi waxtaan ak Cheikh ni ko gëm naa ni am nga fulla ju doy ni soo gisoon koo bëgg dañ ko dem takk indi ci biir kër gi mais li may bañ mooy ngay fooye doomu jàmbur wala nga bëgg ko nax dafa bëri ci góor ñoo xam ne loolu lañuy def dañuy am soxna ba ko ca kër ga ñëw di la gëmal ni yow bëgg nañ la fekk ni kuñ caaxaane rek lañ ñuy wër bëgg googu ñuy wax bu doon dëgg la ci ñoom dañ lay jël takk la yóbbu la seen kër mais dafa am ñoo xam ne dañuy toll benn niveau dañuy bëgg di dem ay soirée bëgg di dem ay plage bëgg di dem ay resto te seen soxna du man loolu léegi dañuy préférer wut koo xam te si moom la ñuy caaxaane di ànd ak moom di dem ay restaurant ay plage et tout li nga xam te ni seen soxna munu ko dañuy wut koo xam ni si mënal na leen ko te bu ñu nekkee ak yow ba doyal ci yow tamit fan lay bàyyi duñ la mus a takk te comme ni ma ko waxee woon tey sama vidéo bi passé je pense que tey jii nii nit ki li ngay dem di yàqu ci àll bi boo ko defoon sa biir kër moo ëpp yiw te tamit loolu gàcce la ci fekk parce que loo defal sa njaboot loo defal waa kër je pense que. ku la ca fekk tamit dalay encourager rek mais du la ci musa yedd donc ñun góor ñu maytu di def loo xamante ni yeddaange dañ cay topp parfois nag am na ñoo xamante ni si dañuy wax que ni am ñu jàmm seen kër moo tax ñu génn di ko wuti mais je pense que tey nit ki même soo amul jàmm ak sa soxna war nga mën a jéem a def le tout ba jéem ko organiser xool nu mu rafete ba sa diggante ak sa soxna mën a neex su demee nag ba loolu nga xamante ni si mënul nekk pourquoi pas nga takk deuxième femme indi ci kër gi mais li nga xamante ne si moo ñaaw ci gisin mooy am sa soxna bokk ko ca kër ga génn dem ci mbedd mi di taxawaal ak yeneen jigéen donc message bi nga xamante ni sii pour jigéen ñi la di leen xool bu baax fi ngeen di teg seen tànk bàyyi leen ku ñëw rek ngeen topp ko dafa bëri jigéen ñoo xamante ni dañu bëgg ku am situation nit bu ñëwee présenté wu rek ñu yaakaar ne mën nañoo am ci moom dara dañuy profité dugg et comme ni ko Mariam di defee nii am na ci ñoo xamante ni si nii même bu ñu xamee ne am nga soxna dañuy ñëw di diir mbagg sa soxna mais tey gàcce gi nga xamante ni si moom la Marème am ci série bi je pense que benn jigéen bëgg ko am te loolu li ko yóbba mooy dugg ci jëkkëru jàmbur ba pare di oser dem këram pour régler ay comptam ndeke malheureusement moom comprendre woon ni piège nañ ko donc il est temps aussi ñu dem a defaraat mentalité yi donc man je pense que tey ku jigéen ki fi mu war a taxawee mooy koo xam ni déjà am na soxna bu ñëwee ci yow présenté wu. ni def la bëgg je pense que bu dee fulla moo ko yëkkati war na mën a def lu gaaw def farata jël la soxna yóbbu la këram mais su bëggee durée relation bi tey ngeen ànd dem fii wi weekend suba ngeen ànd dem fële resto jàppal ni ku muy foyoo doo nga lay wër donc yéen tamit yéen a mën a yeewu ci côté boobu alors tey débat bi du gudd parce que dañu gis ni épisode bi ci diggante Cheikh la Lalla ak Marème ak juste benn point bu ñu ci bëggoon a yokk muy Noura keroog waxoon nañ ko dañ koy rappelé waat waajur bu ne boo doom war nga xool ni ñu koy yare parce que Noura bi muy joué ci série bi day wane ni waajur bu ne war nga xoolaat yar bi ngay yar say doom parce que déjà à chaque fois danga nga koy gis que lu bëri su yàqu ci moom lay jaare donc ñu fonkaat bu baax yar bi nga xam te moom la ñuy yar xale yi. parce que xare moom xamul dara soo ko bàyyee ak sagoom rek bu boobaa du xam dara donc ñu bàyyi xel bu baax a baax ci façon bi nga xamante ni si moom la ñuy yare xale yi alors delluwaat di tuubaat encore une fois di jégalu bu baax a baax. wax ji nag lépp lu fi jub ngeen xam ne ndimbalu borom bi la mais lépp lu dëng ci kiy wax la ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm di leen jox dig daja ci benn vidéo incha allah.